Marie de Guédiawaye ASC Jaxaay contre ASC Notaire ASC Jamono 2 euh, mu nekk quart de finale boo xam ne jaune 2 euh, de moment à l'autre match bi dana départ ñu koy suivre en direct sur Guédiawaye info euh, Jamono de ñoo nekk en blanc bleu blanc ñoo nekk noonu di di échauffé wu noonu ñu mën a suivre match bi nag en direct sur Guédiawaye info point com ASC Jaxaay ñoo nekk nii seen 11 tubes yi def na présentation léegi léegi macha allah. Euh, kon nag ñu ngi nuyu mboolem euh, auditeur ak euh, téléspectateur ak téléspectatrice yu Guédiawaye info gis ko stade bi mën nañu wax ne poul ba fële dëkku feet fees na del soo xoolee fii côté à gauche tamit fees del supporters yi tamit vraiment ñëw nañ tey def nañ benn remarque aussi gis nañ ne sécurité bi bëri na fi lool ndax base sa match bi match sa tension la jamono ja jamono jaxaay du nekk match bu yomb derby la vraiment supporters yu jamono jël nañ en masse jaxaay noonu Euh, kon nag euh, de moment à rek ñu commencé arbitre yi ñu ngi nekk dañu ci bi euh, ñu ngi nuyu fu waaye mënut a nekk rek di suivre Guédiawaye Info tey mu nekk fii ci stade Amadou Barry quart de finale zone 2 ASC Jamono 2 ak ASC Jaxaay mu nekk match boo xam ne nag arbitre bi yëpp doon nañ ko xaar de moment à l'autre ñu commencé gisoo vraiment sànq entre joueurs yi entre équipe yi jaaxaloon nañ trop mu nekk action entrée bu am passion dégo Euh, mu nekk affaire boo xamante ni bu am solo la euh, ñuy lancer appel bu am solo moo nekk match yi quel que soit alpha rek c'est Guédiawaye kii gañ kenn ku nekk man cee bàyyi xel ci loolu euh, gis nga wala vraiment tribune yi fees na del gaa yëpp ñoo nañ les autorités administratives ñu ngi nii teew ñu ngi nii ñoom ñëpp toog kon nag ñu suivre en direct sur guédiawaye info point com Euh, euh, match bi suñ paree mën nañ ko am après en direct sur YouTube Guédiawaye Info ñuy wax képp kuy safoo Guédiawaye rek mën nga abonné sur Guédiawaye Info point com nekk Guédiawaye Info TV euh, en direct sur stade Amadou Barry de moment à l'autre nawetaan bi match bi dina démarrer ASC Jamono 2 ASC Jaxaay léegi-léegi match ba amoon grand kan la woon Euh, ASC Daaru ak notaire ñoo doon xubal léegi léegi Daaru mu notaire moo ko dóor 2-0 kon ñoom qualifié nañ quart de finale gis nga ASC jamono ñoo nekk noonu euh, ma zoom leen tuuti gars yi gis seen waa jamono képp kuy safoo jamono ASC jamono 2 mi ngi noonu waaw ASC jamono 2 ñoo nekk noonu ah ASC Jaxaay nekk ne vraiment tey mu nekk match boo xam ne ñëpp ko doon xaar ci àdduna bi en direct sur guédiawaye info point com guédiawaye info TV Euh, techniciens yi nekk ci kii bi Madani moo ci nekk ci technique bi Mbaye Prési Laye Cissé euh, bëri na euh, Simal lépp ci Guédiawaye info la waaw match baa ngi nii di waaj a commencé ah, de moment à l'autre match bi yi ngi noonu ma may ko gars yi tamit ñu suivre jëngal tuuti Gara looy wax ci match bi gars ñu ngi koy suivre yow loo loo gisee match bi. waaw ah, man dama ñëw seetaan derby. Ah, bokkuma zone bi nag. zone zone 3 Guédiawaye laa bokk. ay say guy gi moo nekk sama. bon daa am sama benn ah, moo ma moo expliqué match mhm. mhm. euh, moo tax ma ne woon naa ñëw xool. Mhm. xam naa ne déet bi la. te li ma fi gis tamit neex na ma quoi. Ah. supporters yi ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi supporter seen ASC. waaw waaw man nag. supporté wu ma kenn mais football laa supporté si quoi. football ñaari garaar sax dañoo de bu ñu xeex am. ay ay say guy gi laay supporté ay say guy gi laay ay say guy fu ngeen toll yéen. waaw yéen quart de finale lañ toll. ah quart de finale waaw keroog dañu doon ay ay say waal daal. jamono de dégg nga dëgg fii nga mos. yàlla yàlla may tam mo say jamono. waaw ay say jamono de yàlla ko yàlla may tam. da may dugal dama lay laaj moom ay eh, man damaa far fenn man li sama yoon ci man waay man man géejuwaay rek laa far kon nag ñuy seetaan eh, géejuwaay info gisoo tribune bi dafa fees del vraiment xoolal grand yi gaa yëpp a ñëw kon nag ñu koy suivre si géejuwaay info gis nga dafa bañ taxaw ñu sax fuñ toog amul ko mais nag ñun téléspectateurs yi jaral nañ ñu lu ne waaw géejuwaay info point com jamono 2 ASC Jaxaay d'un moment a l'autre le match va démarrer l'arbitre est au centre Là, il est en train de concerter avec les autres arbitres Quand kon nag euh, Idy Guebet bu ne notaire rek mom. waaw notaire de moo mom, moom 2-0 yow da moom mom génn yow dem nga demi finale ay say jamono 2 yalla na yàlla may ndam ay say jamono 2 jënd fis gomis moo wax lol néna yalla yàlla na yàlla may ay say jamono 2 euh, ndam ah man dama duma wax amin ndax man reporter la rek reporter mom du wax amin waaw kon nak yéen ñoom ngeen teewlu de moment à l'autre arbitre bi sifflé match bi démarré waaw jaama jeex na de lu doon xaar ñeenti fan reportage yi fii ay coow mat ba démarré na jamono de na jaxaay en direct sur Guédiawaye info en direct sur Guédiawaye info jamono de jaxaay mu nekk mat si derby vraiment képp ku soo alpha rek xam ne Guédiawaye mooy gagné waaw grand yaa ngi may xool de supporter yi xaaruma jël leen supporter yi jaxaay yeeg jamono yi gars yi dañoo tiit gisoo leen ñu ngi wax ñu ngi rapport kii mooy bas xame jamono la wala mi ngi wiy taxaw xaaral ma delloo leen ci match bi. Guédiawaye en direct TV am na jour jour jamono bu daanu de grand jour jamono boobu daanu nu mu tudd bi woote na pour ñu jël ko. match bi du yomb de Pape Sarr moo nekk fee comme coach ku ñëpp xam ci footballu Guédiawaay fee ku ñuy a Ousmane Sibi moo fa nekk comme coach capitaine fee Fallou moo fa nekk fee capitaine jamono Adriano en direct sur Guédiawaay info waaw waaw xoolal jaxaay ñoom no ñu ñu ngi ñoom ci bal bi de jour bu tëdd ñoom ñu nekk di échauffé am naa fa benn consultant quoi waa guy la moom farul fenn nee na guy gi mu ne football moo ko indi waaye looy wax ci match bi yow rek yow tey noo tudd sax. Amadou Sy laa la Amadou Sy la tudd Amadou Sy mooy sama consultant quoi waaw jërëjëf jamono ñooy yëngal noonu zëngalu jamono bi zëngalu jamono ñooy wax noonu gars yi fi mu ne ñëpp a sedd pour l'instant jaxaay bëri histoire nooy yàlla na toog eh ça va yow la ñaar kenn ñaanu ko itam idi idi idi gëbët nee na jaxaay dañoo bëri histoire yàlla nañ toog waaw yow yow da ngay tooñ bu la fi waa jaxaay fekkee foofu foo nekk ci àdduna bi waaye da escadre bëgg nekk nit. Guédiawaye info jamono jaxaay sama consultant day noppalu kii dama sonn ma daani mbaay te mooy sama consultant de waaw mooy sama consultant ma daani mbaay oh jamono am na jour bu gaañu de jour bi kala la nu mu tudd ah apro ah? waaw Pape Koyer la ñu xaw man xaw ma zori man dama vraiment zori xaw ma ci ah déet damay laaj nag nit xamul lépp wala nga ñëw fii rek di ma jox nekk sama consultant Mamadou Aysee Jibo waaw nee na Mamadou Aysee Jibo gars yi ñu ngi commenté di ko suivre en direct ñoom tamit waaw léegi-léegi def nañ benn interview bu am solo ci wàllu lumière stade directeur stade bi wax na dana génn lundi incha allah en direct ci Guédiawaye info waaw expliqué na de nee na lampi li tax taal guddi géejawaay gi yëpp koy laajte waaw ne stade dañoo war a taal lamp yi ndax xaalis bi muy dugal moo bañ ba wax ko démb ci ab rajo nee day dugal 20 millions par mois 20 millions nag fu ñu koy dugalee war nañoo def ah jamono de Adriano oh, le capitaine ne fi oh macha allah gardien du but ay say jaxaay ñu ngi yóbbu boy alkaati ya nga yóbbu booy ba de da tey nga tux guy bañ jël Alkati yi dugal nañ ko dem na ki dama yo perte ga jamo yow moom sax xaalis nga passe perte nga ko bo len ñewé ñëwee stade yam ah lolu yeen ñun suñu yoon newul ci mo alkaati yi la su dee na ko rek la foofu gis nga man stade bo fi ñewé da ngay yaru li lepp ñu waay station match bi la oh ba wañi na nañ trop ci direct bi taway geejo Cheikh Cham neena contant nañ ci direct bi de Guédiawaye info loolu fi nekkee en direct ay see jaxaay directeur stade bi introsé nañ ko déggal jamono ñu ngi noonu di dem récupération oh ne yaa rien eh bi tey du yomb de jamono jaxaay eh boo xam ne la eh, kii kay kenn dégg mbay tey waaye eh, la ilaha illallah déggal ma loolu rek dañ koy. la oh bi bi dugg na Jaxaay Jaxaay Jaxaay am na un zéro gardien bi moo teg bal bi waa football martaba oh un zéro pour Jaxaay ah eh stade baa ngi riir de un zéro pour Jaxaay arbitre tous accordé gu ko ah arbitre tous accordé gu ko arbitre tous accordé gu ko pour l'instant xamaguñ ci dara pour l'instant moom kenn mënu laa wax dara arbitre bi moo bañ arbitre bi moo bañ gis ngeen ñu ngi doon di constaté ñoom ñaar euh, vraiment tey kenn du ko tànn si Guédiawaye info ànd rek arbitre bi bañ na ko arbitre bi wax na ko de bañ na ko ah. oh li mooy jàmm li mooy jàmm li mooy jàmm li mooy jàmm parce que gars yi dañu toogaat wala zëngal jamono zëngal jamono eh match bi du yomb eh, la kosu bi kosu kosu la Pape Sarr je te te te match bi grand du yomb de sama consultant match bi du yomb ñoo war a defar nawetaan ñoo koy yàq. waaw arbitre ak semis yi moom. ko jaaralee ci yoon ak nawetaan dina jaar yoon. <laughs> waaw gis nga ah, mais arbitre bi lu ma def lii moom dafa wone exemple parce bu accordé woon bii bi match bi war match bi da ciy jaara yaaxu quoi te lii moom mooy nawetaan quoi Zëngalu Jaxaay gi nii mooy Zëngalu Jaxaay ba delluwaat ci match bi ànd rek ci Guédiawaye Info waaj na fi amul dara waaj na bit bu leer la dégg nga waaj na bit bu leer la ah mais su leeree ñu arbitre mooy tiire tiirewul ah arbitre boo ko annulé li tax arbitre bi annulé ko ah li tax arbitre bi annulé ko nga ne oho waa jaxaay la match bi du yomb tey de Andrek bi du info mu ne bi annulé bii bi ah ñun loolu suñu yoon ci de waaw yow da ngay faral wala faru faru ma rek waaw soo faree moom fii doo taxaw man damay reporté ah écho ah ah day yëgoo kon mën ngaa ñëw wax waaw yow yow si leen jël ko bañ ngeen far kenn du fi far man man sama yónni ko ah Echo ma sama ngi ne ci Info quart de finale yëpp en Info Matsa Jaxaay Cité euh, Jaxaay jamono 2 Jaxaay jamono 2 bit lañ dugal léegi-léegi ñu ne arbitre mu bañ ko ànd ci moom ah Fallou man waaw wax nga dëgg de Fallou moo nekkoon capitaine bu mag bi surtout mu seere man naa am ñu jaay ci ko tuuti rënk ko ah déet man barki démb nee na ma kii woon na barki démb kay déglu naa ko moom Fallou maa ngi interviewé kay ci Guédiawaye info Guédiawaye Info en direct Guédiawaye Info stade <laughs> baa ngi neex de jamono jaxaay li match soxla match bi du yomb de

doomu Notaire depuis Espagne Guédiawaye info en regardant depuis Gabon mu ne maa ngi koy seetaan depuis Gabon non. Gabon amul nawetaan. non kooku dafa am nawetaan nee na Gabon Gabon amul nawetaan dégg nga dama ko seetaan nee na Gabon amul nawetaan loolu dugal ma ko loolu dugal ma ko wax dëgg ma am nawetaan. waaw Amar da ngay dugg ci téléphone bi nga ñëw seetaan ko en direct. waaw nee na Gabon amul nawetaan Gabon amul nawetaan quoi. Malick Malick Wele wàññi na Gabon nawetaan looy wax loolu Gabon de seen président daa feebar yàlla na ko yàlla saafara doomu Amadou Bongo Ali Bongo dégg naa daa feebar rek en direct sur Guédiawaye info match bi du yomb tey du yomb de aussi le temps defaral ma sama fil bi nii ma woon la ma jul sama batterie balaa déchargé marché bi tey dara wartu yomb wartu déchargé de gars yi koy suivre ba mu jeex tàkk suñ paree gën mën koo seetaan ci YouTube bi waaye waa ji ne moom mi ngi jëm tëbbi Brésil merci Guédiawaye fo macha allah macha allah ay say jubóo Brésil mu ne vrai y' pas manque manque trop merci pour la direct depuis Canada eh, eh, Baba Rahim nee na moom mi ngi Canada di def di seetaan match bi Canada depuis Canada. jamono de jaxaay pour l'instant zéro partout léeg-léeg na am na benn bit bañ ko. gars yi dund nawetaan nekk ci diaspora bi ñu koy suivre sa en direct kay en direct sur Guédiawaye info donc aji nee na ma depuis Italie Jibril Fall nee na merci depuis Italie ñu ay xamoo ñii ñii nawetaan lañ doon dund ay booy Guédiawaye bëggoon nawetaan lañ xam naa boo leen gëstoo ñii sama consultant am naa fi benn consultant de moom nee na ko fi indi ma nag am nga koo faral moom da ngay wax rek branchel fii safara si moom tey du jeex jamono jaxaay Guédiawaye info merci pour le direct depuis Italie waaw nice de waaw doomu Guédiawaye la de Guédiawaye rek lañ ñoon waa jublu maa ngi regarde beaucoup. Je regarde en direct depuis mon bureau. Merci encore une fois. Bonne continuation et bon courage. Merci. waaye dana moom nee na mu koy seetaan dëpp bureau moo tamit moo évolué sama consultant français nga moom corner consultant ah safara si dugg na sama consultant looy wax ci match bi yow tamit kon ren moom pour l'instant nii tey yow moom kër nga a gis moom bi d'après lu football gum ci ay minutes d'après 18 minutes yu football jaxaay ñoo gën a serré quoi ah waa jaxaay waaw mun a jaxaay ñoo gën a serré consultant nee na jaxaay ñoo gën a serré actuellement live sur Guédiawaye Info jamono de Jaxaay zéro but partout waaw ah, ah. wala grand bi kii xëy kat nga wala ma grand bi la moom mi ngi seetaan moom boobu seetaanu match bi seetaan gars yi foo bokk nee na jamono day gañe Jaxaay man loolu sama yoon ñëwu ci man reporter la man faruma fenn sawaay dégg nga li moom xome la de

après dañoo ma jàllale ci YouTube Guédiawaye Info booy ko Guédiawaye Info TV. daa dugg du regard depuis Italie nee na Mamadou Niang merci Guédiawaye Info macha allah lii yëgu yokku te depuis Suisse moom nee na mi c'est jamono do jaxay 0 but partout. Contre-attaque pour les... Contre-attaque pour jaxay contre-attaque. Oh simet mètres, arbitre 6 mètres le tiré. Jarka bëgg Fallou Seck Jarka eh, eh Jarka suñu suñu kewal bi tekk kat bi Ousseynou Diagne ñëna depuis New York eh ay way Jarka Jarka tamay nam nañ la Jarka Jarka Jarka yo xam nañ la Jarka yow jamono rek nga gëm xam na la bu baaxa baax ñaar ka jamono rek nga gëm nee na depuis Suisse day na jamono jaxaay la doomu ndey numbaan ñaar ka ñaar ka xam nañ la doomu ndey numbaan en direct Guédiawaye info su ngeen paree match mën ngeen ko am YouTube Guédiawaye info yéen ñëpp mën ngeen a abonné jàppale yu Guédiawaye info ay boy dynamique la di liggéey pour Guédiawaye ak Guédiawaye partout Jaxaay Côte d'Ivoire jamono 2 rek nee na El Cheikh depuis Italie gannaaw su topé di lire sen message dama commenté match bi te match bi am solo depuis New York maa lay nuyu depuis Paris ah Ousseynou Ndiaye ah depuis Côte d'Ivoire El tal Cheikh depuis Italie Abdou depuis Italie waaw waaw waaw maa leen maa leen gën nam jamono ndubit <laughs> dama ko rës une veste une saay <laughs> de tout cœur avec daam daam nee moom de tout cœur man daam la ah daam kii sama waay la daam man maa la xam daam xamee jamono nga man ak ma laa xam te xamee jamono bu mag nga Guédiawaye info eh, daam mu ne eh, de tout cœur avec vous en direct sur Guédiawaye info jamono de jaxaay zéro but partout man du yomb tey yéen ñëpp bëgg na ngeen abonné ci Guédiawaye Info TV soo demee YouTube ak Guédiawaye Info TV man ngeen fa abonné jamono jaxaay se rebute partout touche merci Guédiawaye Info les révolutionnaires du mouvement navétane ca kaw ca kanam waaw Malick Fall moo wax loolu de depuis Espagne bi kundul daam yàlla na ay say jamono de de géej waaye am ndam eh daam man loolu sama yoon ñëw man moom loolu du ma wax man ko fii ñaanal si kii moom. kontaan ak ah, sama jigéen bi Mariette depuis depuis France maa ngi lay tey géej waaye info bu taxawee c'est grâce moo jàppale waa géej waaye info ba initié projet bi monsieur Aline euh, Mariette maa ngi lay nuyu maa ngi lay nuyu maa lépp Ali la. ñu ngi koy ziar ñu suivre action boobu. oh bii oh pop Jaxaay dugal na Jaxaay dugal na Jaxaay dugal na Jaxaay dugal Jaxaay oh, dugal Jaxaay dugal sax oh kii oh, oh. mooy sama conseil technique Guédiawaye info kii mooy seen conseil technique en communication Dickson Wilson Koudou jërëjëf mu ne bekk képp woo woo woo jaaj ah mais gars yi jamono yi jamono lañ jóglu gum de jamono lañ dóor 1-0 gum de wala ma waa jaxaay rek ay jamono 2 foo laaf ko 1-0 pour jaxaay bi tey du yomb de. xool su ma tey pare. oh Flaye la rek oh po po na jaxaay la de ma may leen fële gaaw match bi jamono door jaxaay 1-0 partout 1-0 pour jaxaay bit bi moo ko dugal sa kaay wax ma bit bi moo ko dugal laajal ma foofu kaay bit bi kan moo ko dugal war na attaque pour jamono kan moo dugal bit ah nee na ay waay déggal ma waxi ndox mu wax rek kan moo dugal mu ne benn sóoru jaxaay déggal ma garab bii rek xaaral ma filmé leen ko ne garab baa ngi nii dama koy weer garab bi waxi ndox dëgg la wax yàq tribune bi. non lu mu doon bañ a oo rek semis la rek ñoo naan oh oh vraiment match bi dana yàqu quoi match bi dana yàqu dana yàqu match bi dana yàqu. bu ma bi am nañ calmer supporters yi. eh Madi Barama kii dama sama xarit la Madi Barama maa ngi lay bëggee Khadim Lo football boy eh, Madi maa ngi lay bëggee Madi Madi kii doomu Géejawaay la. parce que baa a yàqu de Mbaye Gueye ndànk rek ASC bu mag bi ASC <laughs> bu mag bi do tey moom lañ dóorugum 1 Jaxaay moo dóorugum 1-0 vraiment fi nekkee moom moom bu ko yàq ma si oh xaj nañu alkaati ba toj nañu bopp alkaati ba laay lay la laa toj nañu bopp alkaati ba xoolal mi ngi ne la ma zoom ko toj nañu bopp alkaati ba oh, oh. bañ nañ ko palkaati ba ñoom ñoo def li yëpp ñoo soof ñu seedaa oh oh bañ nañ ko palkaati ba kaay bañ nañ match bi dafa nar a yàqu match bee nar a yàqu. oh gars yi dañuy yàq match ay say jaxaay pour l'instant dañoo def benn pause gardien jamono moo gaañu. moo tëdd noonu merci Guédiawaye info merci Bekay Koundoul A merci Dame Mamadou Ndiaye Aïssé Djibo Brésil ngay nee na rek Aïssé bu mag bi ah bu mag bi dama moom lañ jërëjëf Guédiawaye info Pape Ndour Wessi eh kii fee caam la tudd xam nga la mais li ngeen di wax pour l'instant ñu doon leen un zéro ah oh alkaati yi mer nañ dañoo toj benn bopp alkaati waaw jàpp nañ benn waay kee na Idrissa Jaxaay la xamee naa ko baax Idrissa Jaxaay la bi nar naa yàqu quoi match bi day yàqu. mais jeunes yi loolu rek yow ñii supporter kenn raxu leen. Waly Faye nee na benn initiative. gars yi toog leen nañ toog man tamit fii ñemee ma fi moom ñu ma fiy dóor la Croix Moselle may wàcc arrêté direct bi léegi nag. diaspora bi yàqu la ñun tamit xam ne yéen ñu ñun ñoo koy may en direct ci Guédiawaye info non parce que dafa am tension on tax ci benn bop arbitre benn bop alkaati alkaati baay ngi xaar ba may leen ko yee alkaati bu ñu toj bopp bi alkaati bi kayam dana may nag suñ tojee suñuy collé bopp alkaati bi oh ay way ay way li ñaanu kontaanee tamit moom bu Elkati di dóor seen lacrymogène li may daw man damaa ragal Elkati jamono jaxaay jamono jaxaay bul saaga yow yaa ngi en direct fii sama ah, bopp non non non day jàll fii moo tax ah, mais bul que quoi soo saagee day jàll fii pour l'instant zéro partout donc 1-0 pour Jaxaay nee na s'il te plaît commentaire ak dimanche bi ah déet waay parce que ngeen ci commenté. waaw jaxaay contre attaque jamono 2 euh, gardien jamono 2 waaye nee na naa commentaire match bi non amoon nan bu dugg ba digg rotation bi am pour l'instant 1-0 pour jaxaay jamono 2 match derby la quart de finale Navétane Guédiawaye jaune 2 en direct sur Guédiawaye info gaa yi nekk à 51 personnes yi bëgg naa kenn ku nekk dem abonné ci Guédiawaye info TV ñu abonné ci Guédiawaye info TV pour jàppale waa Guédiawaye info match bi après dana jàll en direct foofu dana ko jàllale foofu sur YouTube. Action au oh, oh, gardien de la famille loolu très bien boobu ñu jamono. Oh. may leen tuuti supporter la dëngalu jamono ñu leen dugal taxuñu découragé. jamono jaxaay quart de finale match derby navétane jaune de Guédiawaye jamono jaxaay pour l'instant jaxaay ñoo amee ballon bi jaxaay ñoo amee ballon bi jaxaay jaxaay nag vraiment gars yi dañuy wax ne ñoom ñooy équipe Barcelone ndax football bu rafet. jaxaay jamono 2 pour l'instant jaxaay ñoo tee ballon bi ñu ngi arrière seen camp oh, ñu ngi def passe rafet ba léegi jaxaay ñoo yore ballon bi jaune noir jaxaay la bleu blanc jamono 2 waaw gars ko de nee nañu jaxaay booy Barcelone wax jaxaay du mu duñu gagné ah ji xaalis nee nag jaxaay duñu gagné loolu moom waruguñu pour l'instant moom daal jaxaay am un merci Guédiawaye info Djibi Fall quart de finale yëpp da koy am sur direct Guédiawaye info instant jamono jaxaay 1-0 pour jaxaay coach bu nekk fee Pape Sarr la Kifilin Ndiaye ne kan mooy gardien jamono waaye ma laajteel la ko fii kan mooy góol jamono kan mooy góol jamono am na ko koy laaj fii kan mooy góol jamono laajteel ma information boobu am waa Guédiawaye info sama sama respect ah Abdou lañ wax mooy góol kii bi mooy góol jamono quelle reprise de gardien match bi dafa am kon ma nuyu sama téléspectateurs yi amoo cinq ans amoo amoo toog amoo toogul amoo ah amoo toog dama yàgg yow yow nekkoo de Maodo Sow ne dama amoo cinq ans amoo ñam fori ñeex bu yàgg wala amoo koy fori na ñeex nee na premier tour ngeen toge amoo premier tour la toge ma ne waa ji ma laaj amoo kay waaw amoo fori na ñeex bu yàgg ci gardien jamono neex na Papa eh petax yi naaw nañ ay dex indi la gaa yi sànni petax petax maa ngi nële dem ma jël ko ma sum ko oh, petax dem na petax bi de wala Pape Sarr Pape Sarr kot si jamono kot si jaxaay moo toog nii moom laay zoom noonu waa jaxaay xoolal ma may leen waa jaxaay bi laay dégguma mais big depuis USA dégguma ko ah eh, soo fa nekk da nga yaakaar da ngay gañ alkaade xam nga tay dañu dañoo sibiri oh alkaade buñu toj boppaa ngi nonu après naa ko woon gars ñu xol ko nee na saw Sow ñu def raay ta pour waa Gaspara mais mu amo rek oh alkaati buñ toj boppaa ngi noonu xaaral may ko gaay alkaade alkaati nonu gis nga bopp nañ ko collé لا إله إلا الله oh bobu toj na bobu alkadi bobu ñay toj bobu gaay tay rek bobam lañ toj bobu alkadi bi ah ñu ngay jël sap sapor bobu ya koy jël ci man kay ba paré gën ci bes alkadi bi la lay may mom mo del wat ci match bi contre attaque jamono mo mo ci nek nonu alkaati buñ ko toj ba bàyyi na dem ñu dem ci ambulance la ilaha illa alkaati mer nañ yalla ya buñ ko fayé ci gaay après la ilaha dugal ko jot sàppoon ñu del ci wat ci match bi franc notaire Ordinateur moo dóor 2-0. vraiment Jaxaay mi ngi fubal fubal bu rafet. bu tëdd jaxaay ci diisoo en direct lay nekk boobu boobu tër bi kenn ñu mu koo bàyyi see def rek boobu en direct lay nekk nee ma ndax jiboo diisoo war nañ ci def kan xaw ma. stade bi daa fees del. ya, merci yow tamit El Hadj Momar Dam bokku ñoom loolu après administration dana ci waxtaan choisir kan ak kan lañ teg waaw eh yow man yow de Real Barcelone. équipe moom sa bopp mooy ban équipe. sa bopp benn waaye ko fii laajte de jamono jaxaay pour l'instant 1 0 pour jaxaay. Abdou Hadj waaw d'accord loolu la de xam ñun moom dañuy wax ñoo leen reporté rek ñu reporté rédaction bi ñoom ñooy toog waxtaan wax ban match la teg. mais diisoo jiboo moom moom ay reportage dañu ko ci def sax préparation yi. jamono jaxaay. Diagne nee na mooy Baye Laye waa Barham mooy waa Baye Laye Baye Laye da xamagum fuñ toll mais quart de finale yi moom mat na jël quart de finale yëpp ñu koy def en direct sur jamono mut si nee na sëngal jamono ko manque s'il vous plaît Info TV après ci YouTube les événements Guédiawaye foofu lay caay xoolal contre attaque xoolal contre attaque Guédiawaye info jamono jaxaay quart de finale zone 2 nawetaan Guédiawaye en direct sur info jaxaay ñoo yëngu noonu dëngalu jamono ñoom noppi nañ bu yàgg gaa yi xëpp ndox Ali amee na ko léegi maam Ali Koundoul depuis Côte d'Ivoire. Eh, net ziara lu bëri bekaay kooku États-Unis la nekk net baabu tey nga xam na moom posé wu ne États-Unis pour temps bi toll wala nga direct bi rek yow tamit 45 minutes ah ban ñun commencé woon nañu avant match Ahmed Babou moom ziyaar lu bëri Bécaye depuis États-Unis moom New York fekk score waaye 1-0 gu pour l'instant Modou Aliou Modou Aliou Modou Aliou pour l'instant 1-0 pour Jakaay Jakaay moo ko dóoru gum 1-0 jëngalu jamono ñu noonu yëngut waa xam naa li nga tax waa jëngalu jamono di yëngutu jamono jaxaay jaxaay moo am 1 0 Adama ànd na pour kii jaxaay ma ne moom oh le capitaine de jamono Adrien jaxaay jamono yooyu jaxaay moo amagum 1-0. Demba Diagne waaw Demba Diagne jaajëf waay booy moom frère kooku sama rakk la waaw Demba Diagne vraiment def nga lu rëy ci jamono yooyu tamit na yàlla dimbali la li ngay yëngu foofu yëpp yàlla yokkal la xewal vraiment yow honneur nga woon pour jamono gardien but bu baax. kenn dula la ci jamono deux waaw yow dafa no couleur jamono ba dem ba jaaj merci mon grand c'est 15 maire de ville courant jamono deux ça va venir 15 mooy bàtt ay adama dee merci géej wa info merci beka j'arrête le job pour suivre le match grâce à toi. Merci mille fois. Vous êtes mon père. Vous êtes mon père. Vous êtes mon père. Vous êtes mon patriote. waa di war a bëgg sa dëkk ah força notaire non yow père kenn du la fàtte père Ali génn góor la mu gisee da ngeen di abonné ci YouTube Guédiawaye info na pour jàppale waa Guédiawaye info waaw mu ne merci Bécaye j'arrête le job pour suivre le match grâce à toi non c'est grâce à Guédiawaye info mais ce n'est pas Bécaye mais c'est Guédiawaye info <laughs> grâce à Guédiawaye Info pour l'instant 1-0 um pour Djakhaï. jamono 2 Djakhaï, quart de finale zone 2 Guédiawaye navétane pour l'instant 1-0 um jamono 2 rek Abdurrahman Bo nee na jamono 2 eh Boy Bo eh Boy Bo parce que jamono la Boy Bo Boy Bo waaye tey mit na ci jamono gum de 1-0 gum yàlla baax na Abdourahmane foofu foofu nga toll yàlla baax na da ngay dina baax ah, amin bilaay nee na bilaay dina baax waaw dee leen abonné ci YouTube Guédiawaye info Rahmane Bo waa Demba Diagne génn góor gars yi dama ngeen abonné ci YouTube Guédiawaye info TV foog da nga gis la boobu foofu oh may leen sëngal bi oh sëngalu jaxaay ñu dellusiwaat ci match bi jàpp rek Abdourahmane boo nee nan jàpp rek xoolal contre attaque jamono bi o oh, Sime corner Mamadou Ndiaye ay say jubbo Brésil Mamadou Ndiaye nee na ma mi ngi dëpp Brésil ñu suivre ko corner bi naa bi xam naa li ci des nag

jeu yu amoon yi sëngalu jamono ñoo nekk nii day mix sow mais ban équipe mooy jamono 2 jamono 2 mooy weex yi yow tamit bleu blanc jaxaay moom mooy noir blanc yi je vais juste de Mabone da Mabone sur scène yi vraiment c'est une très belle initiative pour une continuation merci Demix Sow kontaan nañu yow mu dem abonné léegi léegi nee nañu abonné na léegi léegi merci DMX kon nag mi temps baa ngi noonu ah ngeen may ñu jël pause après dellusiwaat ci bi 15 minutes yéen ñëpp mën ngeen a ñëwaat en direct ci Guédiawaye Info 1-0 pour Jaxaay Jaxaay jaune noir jamono 2 bleu blanc suivez le match en direct ci Guédiawaye Info après intégralité bi dinañ ko teg ci Guédiawaye Info TV mu ne mais ban équipe mooy jamono 2 je vais vous abonner ma m'abonner sur la chaîne YouTube vraiment c'est une bonne continuation Guédiawaye nag fan yii yëpp dafa am lu ñu doon kaas mooy match yi boo seetloo dañuy bàyyi ba guddi wala match bi dem ba guddi gars yi arrêté ko euh, lépp doomu Guédiawaye yëpp di wax ne lan moo ko waral ñu ne lumière stade bi lumière stade bi nag ñun duñ wax ci lu xamul dem nañ gis le directeur du stade introsé nañ ko interview expliqué na danañ ko teg incha allah lundi mu war a jàll en direct sur Guédiawaye info benn entretien exclusif avec directeur du stade Amadou ah, ah, ah, ay vraiment Guédiawaye da koy laaj bu ñu bëgg am ay match nocturne waaw Guédiawaye info en direct sur Guédiawaye info oh xoolal gars yi rek kon nag sama gars yi dama leen naani café après ñu dellu si waat deuxième mi-temps waaw dégg man ngeen a naan après ñu dellu si waat deuxième waaw kon nag léegi-léegi ñu retourné waat ci match bi ok Guédiawaye info jamono jaxaay premier mi-temps 1-0 pour jaxaay jaxaay jaune noir ba jamono jaune ba bleu blanc ñoo nekkee ne mu nekk match boo xam ne quart de finale la euh, jaune 2 Guédiawaye deux moments à l'autre ñu dellusiwaat kon léegi-léegi deuxième mi jamono de jaxaay deuxième temps bi démarré na jamono 2 jaxaay Jaxaay jaune noir Diamant, bleu blanc 1-0 pour Jaxaay waaye ñu tiital de waa la cay C'est tey Momentum. en même temps di def live bi wax ni moom kay dañ leen koy wax rek Axma Koundoul mu ne 101 jarol pour jaxaay xamoon na jaxaay ret ci Guédiawaye info Axma dama nga abonné ci YouTube Guédiawaye info TV soo paree nga ñëwaat pour l'instant 1-0 pour Jaxaay euh, Marché Jaxaay Pape Sarr allah njarke nene to mo seeri am na jour bu tëdd jouru jaxaay ci Pape Sarr moo nekk nii di wax ak jouram coach su jamono yi les deux coach coach su banque bi ak adjoint ak entraîneur bi ak adjoint Guédiawaye Info TV njarka dama ci Guédiawaye Info TV YouTube nga abonné bi foofu gars yi ñu ngi préparé jëli Bassirou Fall Sarak Bass Bass Sarak dañ ko jëli xooli artiste émission bi ak mbay prise yi direct Guédiawaye Info ci ana Madani Tall Madani ngi nii Madani mi ngi toog ci banc bi Jibi mooy laaj Madani Tall Madani ci banc bi info Jaxaay jamono 2 quart de finale nawetaan zone 2 1-0 à retouche retouche bi baaxul billahi abdurrahman bo neena dama ci looy tiit en dara lañ la gum rek waaw bi ko fenn deuxième mi-temps daf la gum nañ 8 minutes merci Darka nee même temps may bind sax ay message pour ñu prier merci Darka merci Darka Abdourahmane Bo dama nga abonné ci YouTube Guédiawaye Info TV Daouda Gadj, mon ami. je suis fier de toi pour les encouragements, mon ami Gadjo Daouda. Merci, merci pour les gens. yow a jamono la ñu ngi ci xolu jamono Daouda Gadji gara foo far yow dem na kii jamono la kii barki yàlla xaaral ma jël la jamono la mu ngi nii daa mer wala nu mu fasee kanam bi contre attaque contre-attaque pour jamono contre-attaque pour jamono contre-attaque pour jamono euh, oh gardien Jaxaay oh foofu foofu. Abdourahmane Bo yàgg nañ abonné naa bu yàgg même j' même j' écrit des messages privés à vous merci Diack merci de votre soutien. aywaay ma may leen ko xool leen xool leen fële mooy ñu dëkk Géejawaay xaaral ma lii paase ma may leen ko waa ngeen xool environnement Géejawaay da ci am solo. stade baa ngi nële jumaa ji Senelec jamono sëngalo jamono ngoog sëngalo jamono may leen ngi environnement gi daay daa ngi tribune yi xoolal kër yële xoolal gaay la ci si kaw étage bi di seetaan waaw mosul léegi ngeen gis merci Daouda Gadji remplaçant Papa G Ndiaye quel score le score actuellement c'est 1-0 1 pour Jaxaay 1-0 pour sàcc la directeur bi nee na état bi dina 20 millions c'est grave merci David Gagne ci chef yi. communication Guédiawaye Info Mor Fall abonné Guédiawaye Info TV sur YouTube après match bi intégration bi yëpp dana jàll Info TV YouTube Guédiawaye Info TV 44 personnes ci nekk à bu la abonné wu ko abonné pour jàppale Info wax ba en direct lañu ñu seen des Info deuxième mi-temps quart de finale Touré mooy laaj bi porte adresse 78 195 02 56 wala nga def géejawaay info arobase gmail point com soo demee ci internet bi da nga gis contact yi. faire des pipes tapale rek wooteel foofu rek. soo wootee gars yi loolu bi neex dana kontaan wala moom kii moom mi ngi kaas rek dañuy mën a un zéro ak yooyu booy jamono la gannaaw bi jamono la bokk dafa sonn c'est ab ndam bi nag pour faire des pics waaw wooteel foofu rek Mbaye Touré wooteel foofu rek 78 195 02 56 wala wooy dañ leen jot mais nag wala nga envoyé mail à partir de 22 xam nga su jeexee rek jamono jaxaay bush jaxaay merci Mbaye Aziz loolu moom kontaan nañ ci nga jàppale gars yi ñoo def pub rek la abonné seen YouTube bi def sage sama pekk di soo jubóo tamit danañ def en direct score 1 0 pour Jaxaay jamono 0 1 pour Jaxaay en direct sur Mountaga ta Sarr bis oh grand Mountaga Amadou Sarr vraiment grand yow bëgg naa am sa numéro grand am Mountaga Amadou bëgg naa am sa numéro grand yow dama la soxla ngir yàlla rek du bala ma nga dugalal sa numéro grand Amadou Mountaga Amadou Sarr le grand journaliste notre fierté ah grand Mountaga Amadou il faut nga dugalal sa numéro par privé nga envoyé ñu ko ci Guédiawaye Info dañ soxla yow grand foog ñu seet si la Mountaga Amadou bu fekkee yaa ngi déglu sama commentaire vraiment soxla nañ loolu ci soxla nañ la soxla nañ la ñu il faut ñu ñëw ñu waxtaan ak yow sa numéro soxla woon trop jamono jax aay quart de finale jeune de Dieu Guédiawaye en direct sur Guédiawaye info maam Cheikh Diagne affaire bu nice daal yéen a ngi coop waaw ah, maam dama ngeen amoon ci seen YouTube bi Guédiawaye info TV maam tamit su paree en l'intégralité fa lañ koy fa lañ koy dugal su mu génn article ci site ku bëgg publicité bi mën ngaa indi ah de 78 195 02 57 wala guédiawaye info arobas gmail point com grand Mountaga Amadou Sarr ku ko xam mën nga ñu paas numéro ko oh notre fierté de Guédiawaye le grand journaliste sportif Mountaga Amadou notre fierté notre grand frère nous sommes de toi dañ la yàgg suivre yàgg na grand Mountaga Amadou guédiawaye info point Guédiawaye info point com mooy site Guédiawaye info TV lamp yaa ngi noonu de wax daal. problème lumière la stade bi am na waxtaan nañ ci directeur stade bi sant benn entretien exclusif ñu expliquer les raisons jox na ay raisons su génnee ah population Guédiawaye danañ déglu seet na loolu problème kër na ndax démb dafa wax ne stade bi dana dugal plus de 20 millions par mois. 20 millions mënuñ ci defar lamp wala ma lamp yi benn stade wala fële benn benn projecteur te nga am ko 3 li naa leeral stade mënu ko dañ waxee ngeen ay sargal ma Samba sargal ma dem bu fekkee ne mairie bi ñoom responsable bi dañ defar stade bi xaalis bi ñu xaalis bi ñu dugal ci stade bi dañ defar stade ñuy dugal dañ leen waxante dëgg mënuñu 20 millions di dugg ci bi ba léegi lampe stade bi kenn mënu koo defar lu dul yoon dañ koy defar jamono jaxaay 1 0 politique say bu ngeen nekk commencé daje score 1 0 pour jaxaay très intéressé ay mobilisation defar leen stade bi jeune loolu la seeni soxla chaque jour mobilisation génne ay 20 millions ay 10 millions def ay mobilisation bu ñuy terte am politicien dégguñ ko fenn yéen waaye li mu Guédiawaye dafa soxaloon ay liberté boppam ñu lay tànk waaw stade baa ngi nii parce que am na nu muy demee du continuer ndax manque de parce que coach bi di jël ay responsabilité entraîneur bi di jël arbitre bi di jël responsabilité coach de match yoon Guédiawaye képp ku autorité am responsabilité ci lamp stade war nañ cee état bi dugal ay 20 millions ba léegi mënuñoo defar état bi lumière bu baax bu yoon. arbitre bi boo ko war a génnee da ngay génn bu ñu yàq match bi. baa ngi nii nangu du continue li tax du continue mooy manque de lumière dégul ko te waa ji directeur état bi ne état bi ne dugal 20 millions ala ah, suñu dugal maanaam 13 heures lañu ko dugal ak ay masam espoir actuellement 1-0 pour Jaxaay léegi gum na 26 minutes Laye Touré Laye Traoré score du match 1-0 pour Jaxaay quart de finale zone 2 jamono 2 Jaxaay en live sur Guédiawaye Info abonné YouTube Guédiawaye Info pour jàppale gars yi publicité képp ku ko ci bëgg a defoon nga ñëw ci Guédiawaye Info 77 195 02 56 Guédiawaye Info arobase gmail point com Jaxaay 1 jamono 0 Modou Télé Kër Diop merci parce que xam naa bisimilah may kontaan ñu delluwaat ngi sës sës rek. actuellement Abdou Sylla 1-1 Jaxaay quart final jour 1 jour 2 nawetaan Guédiawaye vraiment match bu am enjeu ndax match bi dana mën a àgg ndax lumière stade Khadim Bamba Niass abonné seen Guédiawaye info TV YouTube ngeen jàppale gars yi seen YouTube Guédiawaye Infos merci bekay kontaan nañu ci liggéey bi alaaji kundul jaxaay kese alaaji yëpp ministre de l'éducation nationale ministère la nekk ñu ne kontaan na ci job bi waaw lépp si Guédiawaye Infos la Ndakaaru 2-0 39 minutes à jouer. Plus arrêts jeu. On est là, abonné naa yàgg na ay doomu géej waaye nañ lekk doomu jaxaay waaye kontaan naa ci yow de abonné rek léegi géej waaye info la léegi kay luy lëbb Il y a koy wane tànn yeeg lépp daal géej waay lépp lu xew géej waay fan yii dañ leen di def benn reportage bu dal bu ñëw ci affaire filao yi doomu géej waay Il y a mu demee. ndax littoral bi yëpp dakk nañ ko diko jaay ñu ne wala lampe ya FN lampe FN ya fay de ñu ngi la wajé ko lampe ya fay nañ li mu yaree wàjjee ko di la doon wax daaru nonu la def waaw dañ koo dóor mooy ñaaw ñaari lamp mooy tax xoolal ma li benn ak benn bële ci stade bu ngand bi stade dugal 20 millions par maa ngi koy wax soo ñu mënee jox sa numéro ci ci suuf dina baax trop. Omega am 2 ci yaa ngi may dégg vraiment on a besoin de vous vraiment sa numéro téléphone su ma ko amoon dana baax grand Mountaga Amadou Sarr. en direct Guédiawaye Info grand Mountaga Amadou vous êtes notre fierté waaw yow suñu suñu roykaay nga waaw. le grand journaliste Mountaga Amadou Sarr boo xam ne fu mu mën a taxaw géej waay siggi sur youtube guédiawaye info point com Thier Thiam eh Thier sama boy depuis Belgique oh boy Thier c'est la contre-attaque boobu c'est la contre-attaque bi Apa a personne. Géejawaay Infos publicité yëpp mën oh ay waay lamp yi fay nañ lamp yi jeex na 43 minutes 2 moo ci des am si mënut a àgg deuxième édition la ñu jëm ñoo ko tey 20 millions la def ci stade bi ñu ne benn lamp mooy tàkk ci benn lamp lii dafa ñaaw cher. Eh, grand, yo, on est fiers de vous, grand Moutaga Amadou. Vous êtes notre fierté, notre idole. Que tu vous venez petit presse, c'est grâce à vous, grand Moutaga Amadou. Vous êtes notre fierté. On vous remercie infiniment, grand Moutaga Amadou. Si, vous, si on peut avoir votre numéro de téléphone, ça sera mieux. On discutera, on discutera Inch'Allah, Rabbi. Grand Moutaga Amadou, notre fierté. Grand football sport, tu dis que tu es journaliste, mais quel est le Moutaga Amadou Grand Moutaga Amadou, merci encore une fois de plus. réussir jubóo dana leen jël oh c'est honteux wala benn lampe buy leeral stade bi yëpp non il est obligé ñu arrêté ko vraiment il est temps Guédiawaye gi yëpp wax les responsables tey lii jot na responsable Guédiawaye yëpp ñu wax dafa ñaaw dafa ñaaw trop trop trop dafa ñaaw stade bu toll nii plus de cinq mille personnes yi nekk li ça risque de sécurité yaa ngi après kan mooy nekk sécurité lampe yi benn état bi dugal 20 millions ñuy luwee fa la ñu dugal xaalis doy naa ay trésor lañ jëkk ñoo defar état lañ defar li muy yaru état loolu ëpp njëriñ cri de cœur la géej waay gi yëpp koy laajte il est temps les responsables ils sont indexés le maire danaa ville de Guédiawaye defar la état wala ngeen ubbi état bi njaaree bi gars yi di fuble foofu mais lii risque la plus de 1000 personnes nekk fii ah xoolal lii xoolal lii sécurité bi lii yëpp lëndëm amul benn sécurité lii dafa tribune bu xoolal bële benn lampe moo fiy tàkk dafay sécurité dafa jot géej waay jóg dafa jot état bi dugal 20 par mois il est ñu defar lampe yi waaw ñu dégg nga dégguñ ko fenn lii du du yoon du yoon match bi jeex na la voix des sans voix en direct sur Guédiawaye Infos un but partout jamono 2 jaxaay jamono 2 jaxaay léegi dañuy seet lan la wax lan moo war am ñu déglu léegi lan moo war am léegi rek deux moments à score s'il vous plaît jamono jaxaay est-ce que dañu dem deuxième édition actuellement arbitre di négocier daal am ñu dem série aussi il faut boycotter en fin les autorités réalisent seen famille alaaji il faut que ñu boycotter pour autorités yi réaliser série yi lañ jëm mën nañoo suivre série bi en direct sur Guédiawaye Info ah série jëm de ah série yi lañ jëm ah ah wóoragul wóoragul dañ ne 62 personnes Thierno Thierno Thiam mi ngi seetaan en direct Thierno bee ngi nii saa su dee ko sa grand Joal Diallo en direct sur Guédiawaye Info il est temps que les mu ne jarka am équipe de naissance mooy mairie waaw wax nga dëgg de

na zéro agression dégg nga xoolal kii la mu ne bu doon taal lamp yi lépp leer ñëpp dañuy ñibbi entre wax nañ dëgg bul saaga saaga moom bokk ci géej waaye info di génne loolu xool bu jeex ngay waxee waxal lekk sa ta te bul saaga waaw série penalty yi leen jëm série penalty tiro bi vraiment diaspora bi xamee ko noonu li c'est honteux football ba heure bi benn lamp di tàkk ñu ngi jéem a négocier état yeneen lamb c'est honteux du yoon le maire bi réagir il est temps ñu ngi jéem a ñu ngi jéem a négocier état yeneen lamb ku nu dem dégul ko fenn xolal xolal ñaari lamp yee dañoo ñàkk jom dafa ñu waxee politique ñuy lambar lambari politique rek leen ñoom daray askan bi ñoru leen daray askan bi ñoru leen kon dañu teewlu ci tiro bi ñaari capitaine yi ñu ngi waxtaan ak arbitre bi. waaw ñaari capitaine yi ñu ngi waxtaan ak arbitre bi ndax dañu koy sëri wala duñu ko sëri. kon dañoo war a sëri nag. loolu du yoon nag Sénégal du dem beneen lamb fay na la gestion la gestion de stade incombe au ministère des sports pas la mairie waxoon non non non c' est faux léegi léegi jël naa responsabilité ki yor stade le directeur de stade wala responsabilité mairie la ñoom 20 la ñuy li may wax gën a li may wax xam naa ko dem naa jël interview léegi léegi la directeur stade dañ responsabilité stade bi yëpp maire yi ñoo ko moom le maire Aliou Sall nga naan ma noonu noonu ministère ministère wax xam nañ

match bi un partout en direct sur Guédiawaye Info dañuy sëriñ je vous dis bi day sentir nawetaan parce que dafa am équipe de naissance kii du ñu Cheikh wad wala jaxay djibo extra kon di leen bëgg nawetaan ndax day am yëg yëg ci bi deug la njargal lu leer nga wax njargal mer bi dëkk mer bi mer bi mom xamu dara ci ay nawetaan intéressé ko sax ñu seetaan ci bi jamono moy gol jaxay mooy njëkk door plateau bi jamono jaxaay quart de finale jaune 2 match bi un but par Allah jamono 2 butu jaxaay na moom xaw ma ku ko dugal nu mu tudd butu ku ko dugal ah ñu ne moo dugal butu jaxaay Allah moo dugal butu jamono vingt sixième minute non trentième minute but marqué par Allah jamono jaxaay ñu tiro bi jaxaay moo njëkk góol jamono mooy tuy ma suuf ko pour gars yi mën a seetaan en direct sur Guédiawaye info lu leer la grand kon dañu seetaan bureau bi ah jamono dóor jaxaay seri penalty jamono jaxaay merci grand Moutaga Amadou Sarr Dixon Wilson merci nee na grand Jarka merci aimez la page Guédiawaye Info TV Guédiawaye Info dem abonné Guédiawaye YouTube Guédiawaye Info TV Franchement, le match doit être reporté. On ne peut pas continuer dans ces conditions. Dixon Wilson, le match doit être reporté. On y sera sur le penalty. Ablaye Gadj bu leerul sax bëgg nañu.

Bignona Jaxaay en direct sur Guédiawaye info tiro bi jamono Guédiawaye jamono ñaaw waa Guédiawaye il est temps ngeen réagir ñaaw kumbal bu fii amul lumière te stade bi dugal 20 millions par mois kilifa yi war wax ci géej waay yi war nañoo wax. ñu suivre ko en jaxaay ñooy tiire jaxaay mooy tiire booy ah. en direct sur Guédiawaye Infos tirer Jaxaay condition yi tax sax ñun dañuy film xamuñ ci dara dafa ñaaw bu pour Jaxaay série penalty quart de finale jamono Jaxaay série penalty pour l'instant match bi un but partout wax ci jamono yàlla moo dugal. en direct sur Guédiawaye lan mooy dóor jamono. comment un gardien peut attraper des pénaltys à ces conditions au pénalty des conditions absolument parfaitement raison ni gardien mënu cee jàpp bal ñaaw bu malaat waxoon waxoon ma ko dëkk xoolal li dafa ñaaw xool stade bi lumière zéro adama joxe loolu xoolal lii rek stade bi lumière zéro zéro lumière risque bu xoolal stade dañoo fees dell tribune plus de ay quatre mille personnes xoolal fenn amul lumière xoolal lii lii dafa ñaaw dafa ñaaw xoolal lii xoolal ma lii rek benn lumière amul ñu ngi dóor xaar Acompanha de né?

bëgg wax nañu naan Guédiawaye émergent c'est faux Guédiawaye ci émergent tamit jeunesse bi gisuñ ko parce que football dañ koo gëm ñoom. il est temps autorité administrative réagit. il est temps le préfet wax ci il est temps préfet de ay précaution pour lui. du plus de 4000 personnes nekk ci benn stade boo xam ne benn lumière C'est tegul ko fenn ñu ngi interpellé préfet du ko wax le maire de la ville de Guédiawaye les responsables de wax ci lii lii dafa plus de 4000 personnes qui ci benn stade su ñuy génn risque yi sport bi actuellement ñoom ñëpp jamono raté na benn benn jamono ñëw na léegi léegi le jël ay précautions ci dugub ñi sinon nag arrêté navétane yi kon nga xam ne football kenn du football heure à sept heures parce que risque la amul benn lumière stade bi yëpp nu mu gàddee plus de 4000 personnes amul lumière risque la autorités yi ku ko mënta dégg ñu xam loolu.

lu ëpp dana tuuru dañuy génn léegi-léegi dégg na rey nañ fi nit wala jam nañ fi nit dama nañ ko réagir ba mu wax ba wax mu jotee lii du yoon suñu kàddu ci kaw Guédiawaye info la voix des sans voix parce que dem ba léegi dëkk bi ba wax score actuellement jamono jaxaay kenn ku nekk raté na benn gañe ah. ñu ngi ci dugal gañe jamono su dugalee day gañe. bu mu toll dugal gañe ah. dugal gañe. dugal gañe dugal gañe waaw. nee na dugal gañe jamono su dugal. dugal gañe moo des dugal gañe la jamono su dugalee gañe Bel, bel. mais jamono dugal gagné pour jamono. kan mooy diir dóor ci jamono bi. jëre sa ah waay ñu wàcc suuf dem dugg fële bi daa am jeu en maa ngi wàcc tribune bi dem jege ji fële en direct Guédiawaye info ma ñu ñu ñëw may ma ñu ñëw en direct info may ñu ñu ñëw en direct Guédiawaye info gaa yi koy seetaan de 85 personnes mbay ñaan Guédiawaye ni diaspora lii du condition yi du yoon teguñ ko ay lampe di tàkk lampe yi dafa war a mat leen responsable ñëpp lañ interpellé non non non du fi kenn bi directeur stade interview naa ko léegi léegi lan di dana génn les wax cinq heures mooy may ñu may ma ñëw may ma ñëw may ma ñëw may ma ñëw Guédiawaye ma dem jëli bële may ma se ñëw s'il vous plaît may ma ñëw presse la presse la wala não não en direct tá non non non saa yi may ñu. non non saa tá yi xoolal dañuy xoolal lii dañuy liggéey xoolal en direct la 87 personnes di seetaan non xañal ñu dugg saa yi gars yi caaxaanuñu sa waay gardien grand eh. waa ji yore bi mi ngi nii de boo bañ journaliste yu dugg mi ngi nii ngeen gisal seen bopp mi ngi nii mi ngi nii de moo bañ gaa yu dugg ana responsable yi mi ngi nii de mi ngi nii ngeen gisal seen bopp moo bañ journaliste yu dugg nee na da koy téye. da nga bëgg këram caméra bu baax kaay def ñun dooñu jàngal lu ñuy def mi ngi nii waaw ñun ay journaliste lañu. yëgul yàquñ ma mu ngi nii moo leen ko xam moo leen ko teree xañ de ñun mënuñ ci dara c'est pas normal pour le ville de Guédiawaye moo bañu seetaan final bi de ñu ngi nii nag moo xañ mbay naa mais waxal ki ñu bàyyi ñuy dugg ay journaliste lañ wax na ko dañuy dugg direct jëf di seetaan ñu bañ ñu te ko fen ñu ngi nii ñu ngi nii nag c'est pas normal pour le ville de Guédiawaye ah ah ñu def nii rek ngeen xoolee ni moom moo bañ gars dugg ci porte bi xam nga lii c'est honteux grand bul yàq téléphone bàyyi ko kii dafa xamul li ñi def moo tax. bàyyi ko mu taxaw. non non de personnes di ko ciblé en non non non non non non eh, mu jeex kii lii moo boole rek ay mu jeex na jamono est qualifié jamono est qualifié en finale en demi-finale jamono est qualifié en demi-finale match bi jeex na xaaral may foofu sëngelu jamono 2 jamono qualifié na jamono moo qualifié ah, ah dafa bañ a vámonos. Guédiawaye info ñu leen jox rendez-vous beneen match bii di ñëwaat